mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci chaîne bi muy Serigne Djily TV ñu leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu ak di leen kobaal di feddali suñu kollëre ak suñu cofeel ci yeen ginnaaw loolu ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam bu mag bu rafet bu gën a mat di ñaan suñu kàddu bu fekk leen ci jàmm di ñaan suñ borom moo dimbali ñu bañ mën a génne loo xam ne mbokk yi ñuy déglu dina ko jariñoo ginnaaw loolu nag am na waxtaan waw waxtaanoon nañ ko waaye nag yaakaar naa dañ koy del dañ leen ko dellesuwaat ndax xew-xew yi ci am fan yi ci wàllu njabar wàllu armeel yooyu mbokk yi sulli woon xeeti liggéey yooyu yuñ fa def yan xeeti liggéey la ak li tax ñuy suul ay liggéey ci armel ak yenn xeeti def-def yañ fay faral di def balaa loolu nag dañuy jàngat jabar jabar nag boo koy firi ci arab as-sihr lay wax as-sihr nag maanaam mooy wëlbati dara ci anam bopp euh, kenn du ko gis mooy sarfu shay an wajihi bu dee ci sharia mooy ay baat wala ay jëfin yoo xam ne day jeexital ci xolub doomu aadama wala ci yaramam wala sax mu dem ba rey ko wala loo xam ne day tàggale diggante jëkkër ak jabar wala diggante yaari mbokk wala sax diggante yaari àndaale ak yu mel noonu wala sax loo xam ne dalay may alal mayin woo xam ne euh, mayinu aram la kon jabar ci lislaam lu araam la ndax lay tax nga man ko faaw da ngay jëfandikoo lu aram ndax boo jàngatee aay boobu te alquran di wax ne wattabau ma tatlu shayatin ala mulki suleyman wa ma kafara suleyman a shayatina kafaru yuallimuna a sihr kon yuallimuna annaasa sihr mi ngi noonu te njabar ñaare dëgg dëgg njabar koo gis mu koy def rek xamal ne weddi na yàlla wala boog mi ngi jëf jëf yoo xam ne jëf yu weddi yàlla la te ñaare day feeñ ci jëmmam feeñ ci kanamam feeñ ci waxinam nga xam ne dara luy nduru ak yàlla doo ko mën a ko ci moom jabar nag bokkut ak ñaanlu ñaanlu la lislaam santaane moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne addu'a silahul mu'min ñaan mooy gàllaaju jullit mu wax ne yéen doomu aadama yi ba ngeen tawatee doo leen faju kon biñ ko gaarale ay ñaan yu bare bare yonent bi da ko tënk ci laa ba'sa bihi maa lam yakun fii shirkun lépp looy jëfandikoo te bokkaale newu ca loola lu baax la kon loolu mooy teqale lu dagan ak lu araam booy jëfandikoo loo xam ne lu araam la lu araam nag buñ koy wax mooy dalay weddiloo yàlla wala mu lay defloo luñ araamal wala loo xam ne dagan na nag mooy la tàmbalee ci njëlbeen ga ba ci jeexal ga lépp doo ca def lu araam moom la yonent bi wax ne laa ba'sa bihi maa lam yakun fihi kon njabar nag ak jeexitalam ci société bi xam nga ne wa min sharri xaasidin iza xasada mi alquran di wax ne di muslu ci aji kiñaan waxtu wuy jëfandikoo kiñaanam waxtu wuy jëfandikoo kiñaanam nag mooy jëfandikook zaahir ak jëfandikook baatin bokk na ci jëfandikook zaahir fexeel gi mu fexeel ngir lor la ci zaahiran moo xam fexe ba fa ngay liggéeya mu def ay pexe ba dàqalu la fa boole la ak sa patron rambaaj la fexe ba yàqal la ak di dox sa digganteeg nit ñi ci kàddoom ak ci jëfam ak xel yu demee noonu wala sax moo dem fexeel la baray la ci wàllu saaxir muy pexek zaahir bu dee pexek baatin nag mu dem ca koo xam ne li muy liggéey suufali la jabar la fétiche la ndax ñaare koo xam ne day liggéeyal alxuraan ak liggéey tur yàlla am na yenn liggéey yoo xam ne boo ko ko sante du ko def ndax moom ci boppam dana ci xool yàlla dana ci xool ëllëg dana xam ne lum mu yàgg-yàgg dana fi bàyyi ko waaye bu demee ci koo xam ne jabar lay jëfandikoo lu bon lay jëfandikoo seytaane lay jëfandikoo loola da ciy sawar lool ndax seytaane noo gën a bone rek mu gën koo neex kon bokk na ci liy yàq société moom njabar ndax waxtu nit ki bëggee jëfandikoo ak noonoonu sa digg ak yow wala kañaan sa yaw ak yow ñaara dana dem ca ka nga xam ne ragalul yàlla ci la muy def yàq la ci zahir wala yàq la ci baatin yàq gi nag moo xam dalay dofloo moo xam da tëj sa wërsëg ma dootoo am dara moo xam moo xam moo xam ak yu bare bari njabar nag kuy njabar war nañoo xool ay màndarga yi muy jëfandikoo màndarga yi nag lu yomb la bari na ñoo xam ne xam nañ ko ndax dangay taxaw nit da la wax ne man li may jëfandikoo yëfi jinne la ndax yëfi jinne dafa gaaw fekk du dëgg yëfi seytaane lay jëfandikoo jalan lay jëfandikoo bu fekkee dëgg-dëgg la sax ndax ba léegi am na ci ñoo xam dañuy tappale rek yoruñu daal yor seeni xotti biteen ak seeni béjjën sampoo samp di tuuru fekk dara dara niwu fa waaye ñi nga xam ne ñoom yoru lañ ko dëgg dëgg dëgg ñooñu contrôlé bi ñuy siyanteeg iblis wala ay seti iblis wala jinne yi nga xam ne iblis lañuy liggéeyal bu ko defee ñu génn la ci diine dara luy nuru diine duñ ko fekk ci yow duñ fekk ci yow ngay jaamu yàlla duñ fekk ci yow ngay jàng alxuraan duñ fekk ci yow ngay sikartul yàlla barab ba ngay liggéeyee buñ fa fekkee ay salte lañ fay fekk ak ay dereet ak ay bëjjën ak yu kenn xamut ay nataan ay stt di tuuru di fa sànneek yooyu yëpp màndarga la yoo xam ne kuy jëfandikoo njabar soo ko xoolee ci moom danga ko fa fekk te bari na ci lim lay laaj loo xam ne da ngay rey te la ngay rey yow doo ca tudd yàlla da koy tuur ca xambam ya wala da koy tuur ca xërëmam ya ak yu bare bari yoo xam ne wala dem day dem ci géej ga di ko fa tuur ngir bégal jinne yo yooyu yaa xam ne ñoom lay jëflanteel tey tamit ñoom ñëpp seenub àtte ci diine ray la lislaam wax te ray googee bu amul ci saahir mel na ne ray gi mu ngi ci seenu doq coow li fi am fan yi nag ci wàllu armel yooyu nga xam ne ma nga Pikine te solu nañ fa ay liggéey yu doy waar yoo xam ne xeeti njabar yu dëgg dëgg la lu tax njabar ñu koy faral di ko taamu di ko sol ci armel loolu ay gàtt nga la benn gàtt nga mooy fekk mbir moo xam ne mbir moomee da ngay bëgg mu def tasir ca la ngay liggéey xam nga nit bu faatoo barab bam koy suul day jeexital ca moom bu defee benn nga bëgg a rey nit ki am na xeeti liggéey yoo xam ne su fekkee da ngaa bëgg a rey nit ki ci wàllu fétiche soo ko liggéeyee ba pare da dem ci armeel su ko defee balaa yàgg rek dangay ngay dégg ñu ne nañ ko bu fekkee da bëgg ba dootu dara mel ni néew ci biir nit ñi nga xam ne dañ koy daw ni nit ñi dawee ñu faatu xeeti yàqu yooyu danañ koy liggéey nga xam ne buñ ko liggéeyee ba noppi dem suul ko foofa ca barab ba ca armelia ya nga xam ne liggéey boobu day topp kookee nga xam ne fu mu dugg rek nit ñi dañ koy daw ba mel ni néew la ko nit ñi xoole moom ci boppam sax da koy jaaxal ci nit ñi daw biñ koy daw fekk booba liggéey bu bon buñ suul la ca armeel bokk na ci lu mel noonu fay wax ñi nga xam ne wàllu fétis la ñoom buñ koy def dañuy ŋaangal lañ lay jox lañ lay wax demal ca ca barab ba ca armeel ya boo fa fekkee am néew nga ko saxal ko ko ñoo nag fay néew boobu waxaatul mbir mi ngóor si dootit ci waxaat bu ko defee yow loola dalay jàpp ba waa ji bu la yoraloon milliards ci àdduna dootoo ko tudd ndax néew boobu moom mu waxatee yowmal xiyaama la bokk na ci lu mel ni liir wala koo xam ne mënta wax néewam dañ lay wax ne liggéey bu bon bi ñu lay jox yow mii boo demee ca armelam ka nga xam ne mënta wax fexeel ba sexal ko ko bu ko defee li des ci ak dundam yow dootu waxateeg yow doonte dalay dalay rombit bu waxateeg yow lu neex képp lay doon loolu bokk na ci jafi jabar yu bon yooyee bokk na ci lu doy waar loo xam ne xeeti féticheur yu mag yi am na xeeti ndënd yoo xam ne ndënd seytaane na yi ñuy wooyee iblis iblis moomee lim leen sant mooy ndënd toq ndënd googu ñuy tëgg ngir bëggale ko ko dañ koy wax ne derub liir lañ koy foore muy lu doy waar nga xam ne da leen jaral ñu fees liir foore ko ndënd boobee ndax seytaane ju mag joojee moo leen koy sant nga xam ne jabar gu doy waar waar la bokk na ci yaxi nit nga xam ne léeg-léeg boo demee ñu laaj la ko su ko defee ñu boole laaj lañ li koy defaral defaral la ko ne la boo demee ci armel yi moom ngay sangoo wala xeet bi deme loolu xeeti njabar la xeeti fétis la yoo xam ne yu doya doy waar xeeti jabar yu bon yooyee ñu ngi suul ci armeel yi lii lay lislaam di daan benn orma doomu aadama xam nga suñu borom da ko moo tax aay boobu di wax ne wala xadd karram naa bani aadama yàlla teral gim teral doomu aadama moo tax bu faatoo sax day sart ñi nga xam ne ñooy dund neex yi ak moom day sartante ñoom urma jo orma jooje ñoo wëy di ko ko sàmmal mooy sang giñ koy sang sang giñ koy sang denc guñ koy denc loolu lépp worma la loo xam ne lislaam da ko ormal doom aadama nit ki nag waxtu woo xamee ne dem na bay xotti orma jooje ngir yàq doomu aadama wala ngir alali doomu aadama loolu bàkkaar bu mag a mag la te kuñ ci jàpp war nañ laa yar yar bu diis a diis nga dese nag digganteeg suñ borom subhanahu wa taala bokk na ci xeeti njabar yi nga xam ne lu doyoo doy waar am na ku ma nettali ne am na seenu dëkk ci benn dëkk la duma ko wax ne ma foofa boo fa demee boo bëggee rey nit ñoom féticheurs yi buñ defee li ñuy def ba noppi da ngay gis jëmmi yow ka nga soxla ñu wan la ko ca seetu ba ne la kii la nga ne waaw nga wax la nga bëgg ci moom ñu daal koy def fi saasi te daañu ko ñoo ne ay nit lañ yoo xam ne sol tuba tubéy sax xam ne ñoom lu bon rek lañ xam kon bari na xeeti musiba yi dal nit loxob doomu aadama génn ci ngir kiñaan kiñaanam ak ngir soxoram ak ngir ak bonam ngir ak ñàkk gëm yàlla subhaanahu wa taala yooye nag bokk na ci yi nga xam ne ñoom dañ koy maye alal muy lu doy waar benn dañ lay laaj sa cër benn ci sa cër yi moo xam sa baaroon la wala sa wala sa baaraami loxo wala sa bët wala sa nop bu defee nga xam ne xeeti jaayante la booy jaayante ak iblis wala saytaanu joojee ñuy liggéeyal ngir alali àddina wala sax ñu laaj la bakkan sa bakkan bakkan boo xam ne moom nga gën a bëgg moo xam sa soxna la moo xam say doom la moo xam say rakk la moo xam say mag la jinne ji ray ko bu ko defee yow nga féetewoo bàkkaar bu mag boobu xam ne waxtu woo faatoo bi sawara loolu nag day bëggal iblis mbégte mu rëy la ci am ndax dana xam ne kii alag na ko ngir alali addina rek te loolu nit ñi ñu ngi koy jëfandikoo lu baree bari bari na ci ñoo xam ne seen doom lañ tayle ñi seen jabar ñi sax seen yaay loolu dara waralu ko lu dul alali adduna gi nga xam ne lu mu yàgg-yàgg day jeex loole nag mel na ni nit ki bu ko déggee dana tiit tiitaanga boo xam ne day mel ni laa ma farla ma ne su ca rëcc waaye nag bul fàtte ne alxuraan mu ëpp doole lépp ndax waxi yàlla la ne yàlla ëpp kàttan lépp noonu la alxuraan ëpp doole lépp noonu la mbootub alxuraan ëpp doole lépp yow kay yaa ci dul xam noo cay aaroo ci sakar wala noo cay aaroo ci gàllaaj wala noo koy jëfandikoo ba man la aar waaye alxuraan dara melul ni ndax mi ngi mel ni yàlla ak yàlla yi fi tudd lu mu rëy rëy rëy alxuraan dendul ak moom ndax alxuraan ma wax ne jaa alxaq wa zahaqa al inna al baatila kaana zahuqa dëgg fu fekk neen rek daal di ko fay jëlee bu ko defee mi nga xam ne nag ya am aajo wala yaay ñaan wala yaa am soxla nga xam bu baax fi nga war a dem ndax donte lu baax lay ngay def waaye na nga ko jëfandikoo bokkaale am na ca loola dëgg la lu baax nga ci bëggoon waaye nag mooy nga yàlla mooy nga la moo tax jullit lépp loo xam ne ko jëfandikoo rek da nekk tur yàlla wala mu nekk alxuraan wala sax gàncax goo xam ne amul dara ci bokkaale ni ko borom bi subhaanahu wala ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee laa ba'sa bihi maa lam yakun fii shirkun moo xam gàllaaj bu ñuy takk la moo xam gàllaaj bu ñuy naan la moo xam gàllaaj bu ñuy sangoo la moo xam tur yàlla wu ñuy sikkar la kon xaj na bàmmeel euh, cimetière yooyu rek lañ découverte ci Pikine waaye man mën naa ne mbooleem cimetière yoo xam ne boo ca demee rek yu mel noonu nit ñaa ngi ko nit fay def benn ngir alali àdduna wala benn ngir yàq nit ki ngir yàq nit ki ba dootu yor dara wala ñu folli ko wala sax ñu tëj ko te yooyu yëpp nit ki léeg-léeg day dem ba naagu ci boppam ne kenn du ma mënal dara fekk boobu ku naagu rek da daal di daagu moom nit ki war nay saytu boppam saa yu nekk di ko càmbar euh, ci ci listixaarlu ak ci ñaan lu ndax bët la koy fat du ko gis baraana ngay ànd ak sam noon ku lay fexeel bu dégg bëccëg te doo ko xam baraana ngay gis ku lay siiñ te fekk boobu lu bon la la ëmbal lay fexeel saa yu nekk te loolu say bët yi mënoo ko xam sam xel mi sax du ca dem kon ngay watt sa bopp saa yu nekk rek di ñaan ñaanlu ak pour yàlla wala aar ak looy sangoo loo xam ne lu la nit def rek loola day dañ te loola lu am la ak seen xërëm yooyu lu mu rëy rëy rek am na yoo xam ne boo ko jëfandikoo rek suñu borom dana la dimbale ci barka ka loola moom day daal di ko kon mbokk yi waxtaan wu gàtt la woon rek leen indiloon ci xeeti njabar yooyu ñuy def ci armeel yi di xotti suturas jullit ñi ak mbokk yi te muy lu bon a bon ñu jégluwaat nag bu baax ci kàddu yi bëggoon nañ lu ko gën a rafet ak lu ko gën a jub ak lu ko gën a leer waaye xañ na ni la ko suñu boroom bëggee din wax di leen wax rek di jox beneen dig daje ci incha allah ci beneen émission wala ci beneen actualité in uridu illa al-islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullah